bay Njaga gorla, la gor la garmi la te jambar la julit xàqan la murid saadix la ab Baay la ñepp ko bëgg ñepp ko fonk ñepp ko sop ndax ñi mo leen gindi ñi mo leen dindi ci lañ ne ñi mo leen indi ki ab sàmm la nimbal la ki yermane la ki tawféex la ci ñun la taxoon moko setal la la dengon moko jubal kon bisam bisum mbollem ku bëgg lu bax la